embauchement la ñu bëgg. embauchement la ñu bëgg. embauchement la ñu bëgg. embauchement la ñu bëgg. embauchement la ñu bëgg. au départ nous étions 404. au départ nous étions 404. mais am na ñoo xam découragé nañ bàyyi am ñoo xam suñu borom moom na leen ci diggante bi à travers liggéeyu Senelec sax far ci la ñu deewee accident de travail ñu jot ñàkk seen bakkan. ñii tamit découragé nañ bàyyi ñii jàpp nañ ci leneen seeti leneen mais ñi fi des amuñu feneen fu ñu jëm parce que mënoon def tant d'années à la Sénélec plus de 15 ans 20 ans mënoo ta waat feneen parce que xamoon lu dul Sénélec ñooñu ñoo fi des ils sont au nombre de 200. 30 ñoo ci des actuellement mais au début nous étions 404. actuellement au niveau national. ñun ñoo bëgg président recevoir ñu. parce que dafa joxoon ay directives parce que fi ñu demoon di déposer ñoo ñu informé que. lii président bi ñu nekkee ci suuf moom di def suñu grève de faim joxoon na instruction pour ñu régler problème mu ATE mais ñun xamuñu ban niveau la amee blocage. non Pape dem bi tey depuis 2019 bi mu nekk accédé à la tête de la Sénélec ba léegi ñu ngi koy bind ay demande d'audience mais mosul toog ñun. ñun daal bi ñu demee 2010 jóge suufu pont bi bu dee yàlla dëgg rek la bëgg à travers ay dara moo fa dem dikk nañu dina sàmm kaddoom ci lii mu wax. pour recruter leen en masse à partir de 2022 dinaa leen jox 10 éléments pour sàmm sama kàddu deux romb yaakaar naa ñun ñëpp gis nañ ne romb na at 10 la kon amul benn évolution ñi nga xamante ne président góom bi mu doon fajlu day fa gën a infecté wu. en dehors régularisation man mii di wax ak yéen juillet laa gëj a lekk xaalis Senelec 2022. ba léegi juillet mois de juillet deux mille vingt deux. deux ans trois ans. trois ans am na fi sax dégg noo ko man mii di wax en personne li ma xam xaalisu juillet laa gëj a lekkat Senelec te minimum minimum chaque mois suñu suñu agence dina dugal un milliard et quelque ci keesu Senelec le zéro zéro zéro zéro virgule un pour cent sax du ñu dund. embauchement la ñu bëgg. embauchement